tam te nag moom li ma bëgg ñu waxtaanee moom mooy euh, situation bi nga xam ne africain ñu ngi koy dund waxuma Chine kese waaye ci monde entier bi par rapport ak li nga xam ne situation bi nga xam ne moom lañ nekkee j'ai l'impression que ni nag am na yenn sénégalais yoo xam ne dañoo jàpp ne Afrique Sénégal la yem demeewul noonu de normalement su fekkee ne dara dafa yëngu ci benn nit boo xam ne dafa ñuul yaakaar naa ne ñun ñëpp la war a laal te boole ci ban dama bëgg xam rek ban instant la suñu dirigeant francophonie yàpp ñu au point que ni képp ku jug laal ñu rek amul benn dirigeant boo xam ne dina jug ba ne dafay revendiquer ñun li nga xam ne moom mooy suñu respect suñu dindité ak suñu identité. ñëpp yaakaar naa ni ñu bëri gis nañu euh, na lañ koy waxee sax vidéo bi nga xam ne moom moo nekk di daw wala boog vidéo yu bëri yoo xam ne mu ngi nekk di daw te dafa viral par rapport ak chinois yi nu ñu nekkee di comporter ak africain bu yàggee nag dinañ naan carrément ni virus bi. africains yi ñoom ñoo ko indi alors que ni tel n'est pas ñu ngi leen di génne ci seeni logement ñu ngi leen di dàq amatuñu sax droit di naan ay dañuy restauré wu mënuñu duggat ci restaurant McDonald dafa taf carrément ni black people mënatul dugg ci benn restaurant ngeen yaakaar ni loolu noonu yoon la ci dëkk boo xam ne wala boog der bu ñuul boo xam ne moom la ñu wax ni moom moo njëkkee am civilisation ci monde bi ban instant laa bëgg xam la ñu fóotee ba africain war a mën a perte dignitéem amul kenn koo xam ne daf ñoo respecté du si benn dëkk yaakaar naa nag moom si page bi am na ñu bëri ñoo xam ne ay immigré lañ su fekkee ne li may wax amul nañ ma wax amul benn dëkk boo xam ne dinga fa dem ci continent yu ñuy tiim ñu ne la der bu ñuul respecté nañ ko wala boog seen dirigeant yi def nañ de telle sorte que ni der bu ñuul respecté nañ ko amul benn instant instant bii nii loolu noonu pour lan léegi ñun ba ban instant rek la ñuy bàyyi laisser passer bi chinois yi bu ñuy ñëw si dëkk bi amuñu titre de séjour du passeport du visa amul lenn loo xam ne soxla nañ ko du chinois du européen, du américain yi que noir américain mën nga see génne par contre nag su fekkee ne noir africain nga noir yor nationalité sénégalaise wala boog nga yor nationalité ivoirienne wala boog gabonaise tout ce que tu veux moom mooy ne yow daal amoo benn dignité boo xam ne war nañ ko mën a teg suñu chef d'état yi toog rek di xool diplomatie bu ñuy wax gisuñu ci dara chinois yi fii lañ dugg biir Ghana. jël seen or yi jaxase seen dëkk bi lu luñ fa deful amul ba benn instant seen lac bi dañ ko empoisonné à un moment ñu bëri la ñu rey ci dëkk boobu amul benn punition boo xam ne da cee jug benn punition jugu ci chinois ñu ngi Dakar chinois yi ñu ngi Afrique mel ni comme ay fourmis ñoom waxatuñ leen ni carrément virus Wuhan bi nga xam ne dañ ko dugal nekk di rey plus de dix mille personnes dans le monde entier plus de quatre-vingt-treize mille personnes plutôt léegi ñoom ñooy ñëw di ay africains ñoom ñoo dugal virus bi seen dëkk. loolu ngeen yaakaar ni logique na parce que lan africain daal ñoom ñooy bouc émissaire yi est ce que loolu noonu Macky lu muy tweeté yëpp du ñu sonal ak dette bi dette bi dette bi nit ñi dañ kaa war a annuler gis nga la liberté ne se négocie pas elle s'arrache est ce que benn instant wax na si situation wu sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk Chine man en tout cas dégguma ko su fekkee nag am na kenn ku ko ci dégg na ma ko wax léegi moom mooy ñun daal dañuy continuer saa su nekk ñu ñuy ñàkkal fayda dëkk bu ñu dem su fekkee ne ñun daal ñun daal mën nañoo baax. genre ku ñëw suñu si jàmm mën fa la à l'aise ba instant sax fa am comme de la merde mu comme si yow doo nit comme si yow sous période yaakaar esclavage c'est déjà terminé bu mu jeexee dafa c'est à nous de voir ndax on veut se faire respecter ou pas baax bi la doy toog fii nag moom dinaan ay waaw non c'est parce que nous sommes des croyants nous sommes des gens civilisés wala boog on répond pas le mal par le mal loolu non ben essence sax nañu waxante deug mais xolal trop bon c'est bien mais trop bon bon mom bu yàggee da ngay dem sax ba nit ñi ñëpp a lay te instant bi nak loolu lañu ñu tool der bu kenn respecté ko à commencer par nos dirigeants nan nga mën a ben pays diplomatique chinois yi lañ fi commencé di indi ay masque xawma la nak def sen don

loolu rek laa bëgg a xam d'accord mën nañu baax amul benn problème parce que ñëpp xam nañ ne africain moom kenn gënu ko ci der bu ñuul moom ci lu yàlla sàkk moo ci gën ndax mën na la teral ba nga bien d'accord sauf que ne nag moom à un moment trop c'est trop su fekkee ne saay su nekk ba ci ku nga xam ne moom mooy dernière puissance dafa jóg bëgg ñu wan ne carrément ñun tam ay sous lañ benn instant tam il faut vraiment que ñu appliquer la règle du bâton bâton retour foog mu am.

gis nga fii nii nit ñi xamuñu lan mooy baax xamuñu lan mooy respecté nit xamuñu lan mooy teranga puissance yépp lenn kese moom mooy seen problème loolu lenn kese lañu xam moom mooy lan force saa yoo leen wanee force ak développement kon comme ñun nag moom amuñu développement dañ leen wa suñu force parce que mënuñu toog saa su nekk di seetaan ñu ñuy dàq di ñu traité comme si en fait ñun nekkuñu ay nit quoi comme des animaux par rapport ak ñoom luñ fiy def yëpp qu'on se dise la vérité France bu fi dugg chinois bu fi dugg américain bu fi dugg mën na def lu ko neex te dara du ko ci fekk parce que xam na ne du am benn retour ñoom seen dëkk est-ce que yow mën nga permettre comme par exemple chinois yi lu ñu nekk di def Ghana instant bi di jël si mine or yi di ko exploiter de façon clandestine kan moo sañu dugg Chine ban africain nga gis mu dugg Chine rek ne day def lool xalaatu ko sax xalaatu ko benn yoon. mais ñoom xam nañ ne bu baax ne du am benn représailles ci ginnaaw mais ñun ñu ngi toog jàpp suñu ñaambur dañuy génn parce que suñu dëkk ci boppam may ñu ñu jàmm suñu dirigeant yi may ñu ñu jàmm nga demaat feneen ñoom tamit ñu gën a odieux ñu gën a horrible te li si gën a métti moom mooy vidéo li muy circuler yëpp si réseau yëpp nag la jàll si réseau yëpp nga gis carrément policiers yi nu ñu nekkee di dóor. wala boog nit ñi nu ñu nekkee di xeex chinois yi nu ñu nekkee di dóor africain yi nice au calme même comme si en fait de rien n'était africain nekk di di di si mbedd bi di tëdd ñu dàq leen si seen hôtel ñeneen ñu génne leen si seen appartement ñu nekk di tëdd si mbedd bi amul benn dirigeant bu si pipe moo te mu lenn na ay sénégalais ñu ngi si ay ivoiriens ñu ngi si ay kényan ñu ngi si ay nigérians ñu ngi si benn diplomate kese moom moo jug moom mooy pays Nigéria à chaque fois pays anglophone yi ñoom ñoo ñuy wan exemple chaque jour que Dieu fait ñoom ñoo ñëwoon exemple parce que ñoom au moins sax lu mu bon bon bon ñoom il savent se faire respecter en fait ñoom au moins sax dañuy jéem xam ne carrément lii du yoon mais ñun suñu dignité ak suñu civilisation ci boppam la xam fan la ñu jaar ba ñu war a mën a taxaw di naan léegi africain ñoom ñoo indi Covid 19 alors que Covid 19 ñëpp xam nañu ñoom ñoo lekk seen pangolin ba indi ko fi léegi nag nii la ñuy toogaatee di seetaan. Do am ben retour do am ben réciprocité waxuma nak mom j'appelle pas à la violence je dis juste que il est temps que ni ñu arrêté di naan ay non nañu bax dañu rey sa yaay nga ne garaaw ndogalu yalla dañu dañuy rey sa mak nga ne garaaw ndogalu yalla dañuy rey ko xam nga ne garaaw ndogalu yalla la instant nak nit nag moom su lay ëtte di la ëtte di la ëtte ba nga sës ci miir boo ripostewul lay continuer dafa commencé ci occidentaux yi gis nañ carrément retour parce que suñu dirigeants sont des incapables ñoom tamit chinois et tamit ñu jël bu yàggee kan moo desati kan moo desati ci cinq continents yi kan africain si biir dëkkam respecté ñu ko mu génn keneen respecté kan moo desati amul kenn ku des mu mel ni comme si daal ñun amuñu droit nek fa si jàmm alors que ñoom suñu ñëw suñu dëkk duñu soxla dara amul ben papier bu régler bu régloo rek bo xamné ne chinois dinañ ñu ko montrer pour ñun ñu mëna né carrément ah au moins amna réciprocité bo xamné amna mais yow soo dugg seen dëkk di nga wut visa di nga wut titre séjour passeport lepp da koy wut peut-être que nag tey chinois yi kese mais si dëkk yépp la. da ngay gis taxaw comme par exemple vidéo bu défon ci vaccin dafa am kenn ku ci jóg.

on dirait qu'on est toujours à l'époque de l'esclavage dafa parce que nous, nous nous, nous, nous, nous nous nous, nous, nous, commencé nous les musulmans ñu commencé par tous les noirs euh, tout ce qui se passe nous, nous, fu nous nous, nous, nous, nous nous après nous retourné africains sont nous deuxième vague de nous nous alors que nous nañ bu baax ni parce que gisuma daw vol xam dafa am waxante amul ben vol bu dugg amul vol bu guen africain yi lañ ko jëlé té ñoom ñoo jël seen ressortissant diko jël di leen importer seen dëkk normalement su contamination dafa am tay seen ressortissant yi nga xam leen contamination sauf que ni comme nak mom africain moom biko misère la bu day ñëw dal ci kawam té kenn du wax lolu motax nak dañoo japp ni sans défense au calme sans défense ñun nous toog nous ñu de ay on ne répond pas le mal par le mal on ne dit pas de répondre le mal par le mal mais bien instant ce fait fekkee nit respecté wu da nga carrément ma de gré ou de force on n'a pas besoin qu'on nous aime loolu moom mooy dëgg fini, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde parce que ça, c'est pour nous. nekk bëggoon le ni ok garaawul par contre nous ngeen ñu de gré ou de force loolu moom mooy yoon soxla ma pour nga bëgg ma mais di ma respecté mais bëggoo ma respecté C'est mon dirigeant duñ signal peuple bi itamit il reste passif dara amul dara lo xam da fay xew c'est abusé bu dul Occident légui chinois yi bu yagi après ñun ñun fan la taxaw en fait fan la taxaw parce que chaque jour nga gis suñu dignité ñukoy gëna marginaliser chaque jour ñuy piétiner si suñu dignité mo melni comme si africain du nit mu comme si nek noir daal mom fii dans ce bas monde dafa mel ni comme si en fait c'est une condamnation alors que ce n'est pas le cas parce que heure victimisation si pour le moment passé on ne doit plus se lamenter sur notre sort le moom est on doit développer nos pays on doit se faire respecter même si on est pauvre Lola laa mon pour c'était un coup de gueule un cri de cœur boo ça me tenait vraiment à cœur C'est un di franchement benn instant tam ñun ci population bi foog ñu xam lu ñu bëgg d'ailleurs yaakaar naa ñu bëri ci page bi ñu may ñu bëri ñu ngi di dem di ñëw xam nañ bu baax situation nit bu am der bu weex su taxawee ak yow mi nga xam ne dangaa ñuul soo taxawee nu muy demee ñun ñëpp xam nañ ni mu demee ay jaajëf ñëpp